te rendrai gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint.

Christ. nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, que devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ces grands mystères que lui-même nous a laissés en signe de l'alliance éternelle. Comme l'heure fut venue où tu allais les glorifier, comme il avait aimé le sien qui était dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Onları uymak irtihamlaşırlar ve que il n'y le peut, il le pays, feront et les donna à ceux qui s'y plantent, et mangez-en tous, ceci est mon livré pour vous.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 sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux dans le Christ d'une vivante offrande à la louange de ta Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tout ce qui nous offrons les sacrifices, le pape François, notre archevêque Benjamin Diaye, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, en ces jours de la Nativité, nous pensons à Thérèse Arunwa Diacre, Barthélémy Senghor, Pierre Diacre, Diminga Cueva, Ibu Cueva, Jean-Billy Cueva, Georges Diacre, Gabriel Diacre, Louis Andendor, Anna Papaye, Angélique Saint, Pierre Dor, João Ouamindi, Henri Basset, Jean-Claude Basset, Antoinette Hélène Tepes, Léon Boudou, Joseph Emmanuel Diacre, Marie Gomis, Laurent Katanomendi, Guillaumendi, Vicente Mendi, Aréné Correa et les de leur famille, Père Herman Dupin, Père Ange Cassas, Laurent Mendi, Amélia Mendi, Catherine Sombre, Marie Yango Hélène Conté Jean-Paul Ndiaye, ogiste Malick Diouf Mario Diouf Pierre Salano Ndong Louis Madiaka Jacqueline Seyna Gomis Ernest Sen Elisabeth Dioumantien Nicolas Djedou Léon Sonko François Boni Sonko les défunts de la famille Sonko Robert Ngor Rose Faye Rémi Basse Odile Nataran Ngor Léopold Faye Emmanuel Kadiyat Véronique Mendy à nous la famille et tout, d'un papa Daniel Christophe Poli, qui te rendent grâce aujourd'hui, au nom un couple qui se prépare au mariage, Daniel Christophe Poli, Agnès Ngor, et une paroissienne qui te prie pour leurs intentions particulières. Accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Reconnaissez Joseph son lieu. Reconnaissez apôtres et tous les saints dans ton royaume, où nous courons avec la création tout entière, enfin libérés du péché de la mort et glorifiés par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.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 Ele nos salve da nossa Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la peur de notre temps. Par la miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Oh, que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de cette célébration, échangeons signe de paix. mbokku internet Dakar Midi ñu amati mbégte ak kontaan ak mooy élu central am bi nekk mooy Guédiawaye ñu taw ak loolu mooy 15 en 6 il faut que waxtaan moom tout tey ci côté actualité ak li nga ne mooy jeunesse bi ak yeneen ay ñu leen di fay. maa ngi leen di ñaanal euh, xew bu neex xew Noël bu neex euh, li ñu mën a wax mooy euh, xew gi xew jàmm la xew coofel la xew juboo ndaxte yàlla daa jubóog nit jubóog nag nit ndaxte bi mu ko sàkkee Adama Awa juum nañu yàlla bàyyiwu leen yàlla nangu na wàcc ci suuf sile lee won ñu nekk moom ba du bàyyi nit li mu métti métti day ñëw ci nit fekk loolu ndax defaraat li nga xam ne moom la ñuy tas kon euh, waxambaane yi ak jànke yi li ñu war a def mooy juboo fekk fu ñu mën a nekk boo nekkee école nga nekk kër ga nga nekk ci ëpp biti rawatina li nga xam ni moom la ñuy waaj mooy tànn ñu ngi waaj a tànn suñuy maire yi kon waxambaane ak jànke yi xam nga ñoom ñoo ci gën a baxe kon li ñu mën a ñaan tey jilee Noël wax na leen ne li ngeen war a def jàmm ngeen war a sàmm amul ŋaayoo amul xuloo amul dirante mbagga parce que su dul woon su fekkentoon loolu la woon kon yàlla du wàcc file ci suuf sile parce que yàlla su fekkee daf doon dirante ak mbagga nun ak noonu du euh, euh, euh, du ñëw won nañu ne da nga war a suufeel sa bopp suufeeloo ki juddu tey xale ba juddu Yesu Christa moom la ñu fàtte na nañu xam ne ko Yesu Christa daa juddu ci xolu nekk ci ñun tey jilee eh, moom ñëw na il y a plus de 2000 ans mais saa su nekk ak fu nekk mu ngi ci xolu ku nekk ci nun te su fekkee mu ngi ci suñu xol ah yenn yi waruñu ko def ay saaga ay diirante mbagg euh, maanaam ay euh, nawetaan yi par exemple lépp li nga xam ne ay nekkul euh, li nga xam ne day tabax jàmm loolu bokkul ak li nga xam ne moom la ñu jëlee tey ci bésu Noël. ñu gis li nga xamante ne mooy jamono ji ñu toll mooy violence bari si ñun jeunesse bi la ëppee ci côté lu bëree bëree bëri lan ban message dañuy laaj nga xam mooy jeunesse bi pour li nga wax ne léegi-léegi ci laay ñëwaat ñu ngi jëm ci li nga xamante boo xoolee sax si nawetaani toujours ay violence suñu biir kese ñun ñooy reyante di gaañante est-ce que loolu tamit ñu war ñu xoolaat suñu bopp éducation bi nga xamante ne tey mu ngi si ñun. loolu euh, lu am maanaa la parce que ndaxte boo xoolee ci téere yi muy euh, Coran mooy ci bible bi euh, mooy ci Torah li gën a am maanaa mooy coofeel ndaxte euh, nit yàlla moo ko sàkk ni mu la sakkee ak ni mu ma sàkkee uute na waaye li mu uute uute nañu xam ne ci genn garab lañu jóge mooy yàlla bànqaas yi bare nañu waaye nañu xam ne ñu xam ne ñun ñëpp ci benn garab gi lañ jóge kon su fekkente ni ñun ñëpp ci benn garab googu kon nag waruñoo euh, siisante waruñoo euh, diirante mbagg ñoo bañante te itam euh, nit boo demee école liñ lay jàngal loolu nga war a génn ci biti nga dund ko waaye yenn saay liñ lay jàngal ci école leneen ngay dund ci biti te def naa ni du loolu ndaxte quelquefois mbeddu mi mooy yàqay nii am na àndandoo yoo àndandoo yoo xam ne waxuma ne àndandoo yëpp bon waaye nañu xool àndandoo yi ndaxte waajur yi mënuñoo sàmm xale yi saa su nekk ak fu nekk ku nekk am na at boo xam ne boo ci tolloo yaa war a góorgóorlu nga dimbali sa moxoom ndax ñu mën a jëm kanam tabax dëkk bu neex kon loolu lañu gis til tey jëlee ci paroisse Saint Abraham li ñu gis mooy euh, àndandoo àndandoo euh, top ginnaaw suñu percuré père Éric eh, wax xale la kon na euh, waxambaane ak jànkay xool ci moom ndaxte moom du mag waaye mu ngi góorgóorlu mu ngi def li mu mën kémte lay kantaam ndax jàppale chrétien yi kon nag man waxambaane man jànk fi ma mënti nekk dama war a loolu la war a sàmm loolu la war a yéene entre chrétien ak moroomam entre nit ak nit tamit ah seen dundin lan la war mën a nekk ak ci li mooy feet bi ku ne war nga dem ci sa seeti ko nemmeeku ji ko ku nekk li boo fekkee yaa tane sa morom war nga yëg tamit si li te yoroon nga dimbali ko feet itam feetu euh, maanaam euh, juboo euh, seetu seet nit Euh, jàppalante joxante loxo dimbalante yàlla daf ñoo dimbale kon tey jile nag nañu jog dimbale suñu morom niw ji doole yi ndaxte euh, looloo tax loolu ma indi cadeau cadeau Noël yi cadeau yi du maanaam nga dox jokk sa doom mais am na euh, paroisse yoo xam ne dañoo organiser cadeau Noël am na ku ma dégg keroog paroisse Saint-Pierre de Baobab cadeau spécial pour niw ji doole yi waaye ndaxte yàlla ñëw na indil nu li gën am maanaam mooy baal nañu suñu tooñ waaye sax na saxal na jàmm ci suñu xool saxal na coofal ci suñu xool kon nag loolu nañ ko yóbbul suñu moroom yi suñu mbokk yi ndax loolu mën a law ci àdduna àdduna mën a neex. ñu nga xamante ne mooy jamono ji ñu toll ah, ñi nga xamante ne mooy abeille ak li nga xamante ne mooy imaam yi ak euh, kuréelu diine yëpp waa dañu dañu dajaloo di xeex benn mbir muy homosexualité ci Sénégal ba bala ne ko am na benn paix bi li nga xamante ne déposé nañ ko fa li nga xamante ne mooy niveau assemblée pour ñu voter li nga ñu criminaliser li nga mooy homosexualité ci lu si mel ne góor jigéen jigéen ak jigéen di sëy loolu nekk na loo xamante ne ñuy tey yéen ban du ngeen ciy wax ci lool loolu li may wax mooy maanaam xam nga loolu balaa nga pour nga mën ci wax dara na nga sukkandiku euh, euh, sukkandiku ci téere yi ndaxte nañu yàlla ca njëlbeen sakk na góor ak jigéen waaye yàlla sakk na góor ak jigéen euh, nee na leen boole leen waaye boole leen ndax ngeen mën a sàmm àdduna waxul góor ak góor mba jigéen ak jigéen kon ñun ñi nga xam ñun gëmkat yi a ah, ci loolu lañu sukkandiku ndax euh, wone ne euh, mbëggeel diggante góor ak jigéen la ñoom ñoo war a tabax njaboot njaboot googu gis nañ ko tey jile mooy Mariama yéesu ak Yosef njaboot googu mooy suñu royukaay te su fekkente ne njaboot googu mooy suñu royukaay yenn yi duñ ko dugal ci suñu dund. waaye te def naa ni ci loolu la ñu sukkandiku ñun kër chrétien ñun catholique ci lañ sukkandiku ndax bañ yenn yi que parce que suñ ko nangoo rek euh, maanaam euh, mu ngi mel ni li yàlla tabax moom la tas te yàlla li mu tabax mooy góor ak jigéen euh, tabax leen njaboot eh, na ngeen barkel na ngeen barkeel mais waxul góor ak góor mbaa jigéen ak jigéen. <laughs> ah jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal di la joyeux Noël yàlla la fi yàlla bàyyi ba ñu fekkal la fi ay at yu bëree bëri. amiin man tamit maa ngi lay maa ngi leen di gërëm bu baax a baax euh, di leen di yéene par anticipation euh, vingt 2022 bu naat bu jàmm jàmm bu nga xam ne coofeel la ñu jiital ndax li nga xam ne moom la ñu bëgg a euh, sos ay fan yi lay di ñëw donc loolu itam mu mun a jaar yoon. ku nekk euh, am ci li nga bëgg ñi ñuy tànn nañ leen tànn ñoo xam ne tànn leen ngir seen bopp waaye ngir euh, njaboot gi mbir waa ngir waa dëkk bi. maa ngi leen salaam man Sylvain a tudd euh, tey nan nga am ban yëg nga am tey si li nga xamante mooy fête Noël bi ban yëg nga ci am. waaw kontaan rek joie rek yëg-yëg bu rëy kay tey sunu sunu kir sax moo jur tey quoi fête la bu mag si ñun waaw. lan ngay wax ñi nga xamante ne mooy sa xarit yi ak sa am di jàmm ak sa mbokk yi nga xamante ne tamit tey di nga dem seet ji leen nuyu ji leen tey ba lan ngeen ko ban wax nga leen tey nga leen wax ah comme ma ko prêtre bi waxee rek paix et joie rek ñaan lépp jàmm rek jàmm rek ak joie ñëpp feete ko ak jàmm rek waaw ah, loolu rek laay ñaan si ñëpp kay si mbokk ñëpp mbokk chrétien yëpp ñu nekk fépp kay sa àdduna bi paix ak joie rek comme ma ko prêtre waxee waaw ngay conseil sa moromu jeunesse bi tey violence bi bari na yeneen ak yeneen nawetaan bi lamb ji toujours ñu ay violence yi bari bari di am te ñu jëm si affaire boo xamante ne tey muy élection locale lan ngay wax li nga xam mooy jeunesse bi. waaw jeunesse bi moom moo mën a wax si ñoom pour ñu dal quoi ndax fii moom Sénégal ñëpp benn lañ ndax affaire nawetaan affaire de koñ la rek waaw buñ déggoo woon rek ci wàllum wàllum jàmm quoi comme xeex yooyu yëpp du si am quoi man loolu laa wax jeunes waaw si nga réew mi Sénégal ñu ngi xeex li nga xam ne mooy homosexualité mbirum góor jigéen tey lan ngay wax ci loolu tamit quoi. waaw loolu moom ñaaro mais loolu moom du lu dagan quoi man toujours man du lu dagan mais lu may ñaan quoi mooy comme Sénégal luñ ko bëgg a daganal loolu moom affaire de góor jigéen moom du affaire bu baax quoi man suñu ko mën a wax waaye. ñoo jaajëfal ba waaw ah, ñoo lay jaajëfal yaa. nuyu sëñ bi. maaleykum salaam. tribunal la. Bernard Gomis. wax joyeux Noël. joyeux Noël à toi. Euh, tey Beerago bis ñu fekk leen tey ngeen ñëw ah ànd ak ñi nga xamante ne tey mooy ñëpp def li nga xamante ne tey ñaan ngeen tey si réew mi ñaan yu am solo. comme ma tey ànd ak mbégte rek mbégte bu bëri quoi tey mu nekk maanaam bés bi nga xam ne juddum Yeesu Krista quoi chaque année ñu koy féetee ak jàmm tey bépp chrétien maanaam suñu kër mu kontaan nañ quoi on est en joie on joie quoi parce que tey boo xoolee juddum Yeesu Krista dafa nekk loo xam ne mbégte bu rëy la su ñun quoi. loolu laa kii quoi. tey lan ngay wax mooy sa moromu jeunesse yi tey. moromu jeunesse yi ah di ñaax rek ku nekk tamit lenn rek moo am maanaam ñun jeunesse yi lenn moo suñ kii maanaam dañoo war a concentrer suñu dund maanaam boole si jaamu yàlla bu bëri quoi parce que tey boo xoolee maanaam ñi bi yaakaar ni peut-être paradis amul enfer amul te alors dafa hésiter quoi alors que dafa hésiter dañoo war a concentrer suñu domaine boole si jaamu yàlla. xam nga di jàppalante suñu biir xam nga jàppalante suñu même en famille sax ñu jàppalante quoi comme ñu jàppalante en famille kenn ku bu amee dara tam kenn ku bu amee famille kenn ku mu njëkk réussir war nga mun a jàppale sa ñeneen ñi nga xam ne amaguñu quoi te mooy famille bu ñu nee famille kenn ku bu amee day jàppale ñëpp ñëpp daal di am. violence bi nga xam am toujours ci réew mi Sénégal te di ci côté jeunesse bi su ñun la ëppee mooy si nawetaan bi ci yeneen ak yeneen làmb yeeg lu ne toujours ñu gis ay violence ba ñu ngi jëm si ay élection locale sax boo moytul sax ay violence tamit mën na ci am ci yoo xam ne ci jeunesse bi. non violence moom ah man Sénégal ñu ñëpp benn lañ dama war a jàpp mais dans la mais xam nga àndandoo xeexandoo suñu Sénégal liggéey ko defal ko comme ni nga ko waree parce que violence xajul si dëkk bi parce que Sénégal dëkku jàmm la quoi Sénégal dëkku jàmm la violence si dëkk bi tey jeunes yi war a bàyyi violence am na loo xam ne moo ñu war ko quoi maanaam liggéey suñu dëkk suñu dëkk avancé mais pas violence si dëkk bi. li ñuy xeex li nga xamante ñu ngi koy xeex bu baax a baax ci rew mi bañ a ba dañoo déposé li nga xamante ne tey mooy benn lettre fa nga xamante ne mooy assemblée pour ñu criminaliser li nga xamante ne mooy mbirum homosexualité lan nga ciy wax. non mbirum góor jigéen moom yaakaar naa ne waru am si dëkk bi parce que góor jigéen maanaam man je pense que peut-être. benn baakaar quoi parce que loolu baaxul maanaam si jeunesse yi tey boo xoolee jeunes yu bëri yàqu nañ si mbirum góor jigéen parce que da gis jeunes yi léegi dañuy bëgg ay comme sol yoo xam ne maanaam nit ki bu la gisee maanaam peut-être day naan kii xanaa moom la wala du moom te loolu baaxul si dëkk bi loolu xaju sax senegal xaju sax waru sa am si dëkk bi si Europe. jërëjëf di leen salaamaaleykum maa ngi lay fay. man Jacques Gomis Sadou. Gomis ñu ngi wax su waay joyeux Noël à vous aussi di souhaiter le joyeux a à tout le monde à tous les paroissiens de Saint-Abraham ak àdduna bi yëpp. mbaa ñaanal ngeen réew mi tey. waaw ñaanal nañ réew mi yëpp di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan lépp li nga xamante ni daal ñaan nañ ko fi tey ji yàlla suñu borom mottali ko mu doon li gën ci réewum Sénégal suñu réew mu doon li gën ci Afrique gën doon li gën ci àdduna bi yëpp waaw tey bésu mbégte la daal. ban message ngay lancé li nga xamante ne muy ñun jeunesse bi ñun ndaw ñi ban message nga ñuy lancé. waaw di wax ni que jeunesse am na loo xamante ne daa am lu ko war muy participer ci développement wu dëkkam mais pas di dox ci lu nga xamante ne moom mooy lu koy gasaxal. maanaam tey jii bañ a bañ a dugg ci ay violence bañ a dugg ci loo xamante ne aussi day pervertir euh, nit ñi bañ a dugg ci loo xamante ne day yàq defar daal moom mooy lépp man daal message boobu laay lancer jeunes yi ñuy dugg ci lépp lu nga xamante ne day defar mais pas lu yàq loolu daal laay laay laay. lancé appel jeunesse yëpp. Sénégal jamono ji ñu nekk si benn moment boo xam ne criminaliser li nga xam ne mooy homosexualité ak lesbienne ak yeneen ak yeneen bañ a bañoo dem déposer benn kii fa nga xam ne mooy assemblée nationale pour ñu criminaliser ko day benn kàddu ngay wax si loolu. waaw man je pour je contre. j'ai jamais aimé lépp nga xamante moom mooy lesbianisme wala homosexualité yooyu nekkul yo ay ay acte contre nature la daal parce que comme ni ñu koy waxee ci église yàlla dafa lom est un peu mu jël ci kodam créé ci jigéen mu boole leen yàlla góor ak jigéen la boole mais boolewul ay góor boolewul ay jigéen pour ñu nekk dafa boole jigéen ak góor pour ñu sëy mais ba ñaari góor di sëy wala ñaari jigéen di sëy donc man je suis pour ñu criminaliser ko parce que c'est pas des choses yoo xamante ni yu valeur réew mi nangu na ko daal même adduna bi yëpp war ñu sax di dox ci loolu parce ñu leen di dooleel aussi yàq adduna bi la te man gisuma ne loolu mooy lu ñuy avancé loo parce que am na ñun dañoo war a ay doom ëllëg te suñuy doom aussi bu ñëwee nara a woy ci loolu dina yàq adduna bi bu baax te yaakaar naa daal loolu doxul loolu daal laa am lu ma ciy wax. waaw asalaamaaleykum mbokku internet Dakar Midi wasaare ñu lañ ko defee saa su ne tey gis ngeen nga xamante ne mooy waxtaan yi nga xamante ne tey euh, jeunes Caroutiens def nañ ko waxtaan yi nga ne waxtaan nañ ko li nga xamante mooy abbé yi gis ngeen nga xamante ne tey wax ji am na solo lool lool lool kon ñoom ñëpp ah ñaanal nañ ne réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ak salaam te feet bi di feet bu neex mooy feet bi nga xamante ne tey mooy ah mooy mooy fête Noël di leen wax tamit euh, euh, di wax tamit li nga xamante ne mooy suñu mbokku catholique yi di leen wax tamit joyeux Noël ñoom tamit di leen wax ne fête fête jàmm jàmm ak salaam ah liñ ci ñaan yëpp yàlla na am ci réew mi yàlla def fi tawféex bu weere weere wér a wér gis ngeen kàddu yi nga xamante ne jëmal nañ ko ci mbirum homosexualité ci mbirum góor jigéen amul benn diine boo xamante ne nangu na ko diine yëpp ko xamante ne mooy ñu ko interdit di wax gars yi euh, Dakar Midi ak Wassare TV nii lay demee saa su ne ñu ne géen ñu naa demee lépp loo xamante ne actualité la lu xew ci réew mi dañ la ko fekkee indil leen ko jox ko yi nga xamante mooy suñu mbokki éditeur ak suñu mbokk yi nga xamante ne ñuy àdduna bi di leen ñaanal jàmm ak salaam merci beaucoup Música